ci seen jotaay bi ñu leen baaxoo di defal ci fukki fanu burdu yi muy jotaayu burdu annabi sallallahu alayhi wa sallam ci jéemantu ci suñu tabaarakallaahu ñàkk dégg ak gàtt xam-xam gi ñu leen di jéemantul pour firil leen lenn ci abyaatu yaatu nitu yàlla bi nga xam ne moom la ñu tuddee muhammadul busayri radiyallahu anhu fa tabaarakallaahu tey nag ñu ngi ñëw ak yéen ci suñu juróom-ñeenteelu jotaay ci bunt bi nga xam ne mooy jàngale solos tawassulu ci tabaarakallaahu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa tabaarakallaahu eh, borom téere bi yàlla dafa dogal laata muy way yonent bi yàlla da ko nattoo woon mu daan liggéeyal ay buur di leen tagg ak di leen way bi mu demee nag ba yàlla namm koo dimbale ba tabaarakallaahu yàlla dogal nag mu yore jàngoro ju ñuy wax jàngoro faalij mu faj a faj mu tëye wér docteur a docteur mu ne nag daal na def tawasul tagg yenent bi ngir yàlla man ko ci jaarale may ko wér fa tabaarakallaahu loolu lay wax nag di nettali mu ne qadamtuhu bi madiixin astaqilu bihi dunuuba umrin mada fi lchicri walqidami id daaniya maa tuxsha awaaqibuhu كأنني بهما هدي من النعم نانا قدمتو لجيلنا ينتبي تلجيل جيلم جنمو موي تغنا ينتبي صلى الله عليه وسلم تغنا كونك تبارك الله أه بمديح تي تغ يو استقيل دناي ساكو خيت ليكو بي تي تغ يا ذنوب عمر غير يالا من ما جيغل بكارك دندو yoo xam ne ma daa wéy na te jeexal naa dund googa fii genre ci way wal xidami ak liggéey nee na maa ngi tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sàkku ci yàlla ci tagg yooyu yàlla xàcceel ma ci bàkkaar yi nga xam ne paase na ci man nga xam ne li notoon ci bakkaar yooya mooy dama daan sadd ay way ak di nekk ci ay activités yoo xam ne maa ngi koy defal li abnaa i dunia min al muluki wa asaabi dawlati mooy maa ngi koy defal ci doomi ñi nga xam ne yàlla da leen a natt seen suba seen ngoon seen guddi seen bëccëg yëpp mooy di xëccoo àdduna rek xëccoo palaas bi xëccoo fal gi xëccoo bërëb bi loola rek lañuy def waaye dara nekkul ci benn cersa wala lu ëpp sax ci lu ñu bàyyi xel yàlla mu ne daal ñoom ab naawul duniyaa ñooñe daanaka ñoom la doon liggéeyal ak ñi nga xam ne ñooy borom ak pal mu ne way yooya ak liggéey ga ñoo ko togg ay bàkkaar bàkkaar yoo xam ne nag ma ngi yaakaar yàlla ci di ko ñaan di ko jaare ci yenant bi yàlla faral ko bàkkaar yooyu moo tax man it qala daaniya maa tuxsa awaaqibuhu ka annani bihi ma hadiyun mi an naami it qala daaniya ba nga xamee ne ràngal na ma ma lo xam tux sa def na ragal awaqib ak mujum kan ni ba demé nak man yon ak kadola bi ma ci ñom ñaar min na naami tukkee ci juru kër neena mu ne dafa mel dal eh, ciak biñ ma rangal ci sama dox jamana biñ mako rangalé dafa mel bo xamne ne dañ ko rangal muy boom guñu tak xar mo xamne ne dañ ko nara rendi jëme ko tabarakallah pour def ko hëdd yu ci urum ba wala qaram tabaski boom gañ koy tak pour rendi ko man mi dama melne rek non la melone dama mel dal kun jël bat tak ko ci buumam taba wala kun jël buum bok tak ko ci batam nar ko jëmele jëmele tabarakallah betwar wala ci hurum ba pour def ko hëdd yu atatuha yasiba fi lxaalatayni wa ma illa ala asami wa nadami nee atatu topna topp naa mbew tay ndaw fil halatayn ci ñaari wal yeb moy fi xaalati cheri wa fi laalati alqidami wama asaltu jëleewuma ak ameewuma ca liggéey ga illaa alal asaami ndara ay bàkkaar wana dami ak réccu nee na mu ne topp naa mbiram sànkute mbiram réer ci jamonoy ndaw jamono bi nga xam ne doon naa soxlawool di way ak di tagg lan laa doon way ak di tagg ak di ko soxlawool mooy liggéeyal nit ñi wala buur yi wala président yeeg lu ko nuru waaye mu ne jëleewu ma ca loolee ma doon def nag lu dul ay bàkkaar ak di réccu kon nag fa yaa xasaarata nafsin woo naa bakkan boo xam ne eh, bénéfice wut daal wa fi tijaaratiha ci commerce am lam tastari wattewut wala jëndeewut ak diina diine bi duniyaa ci àdduna walam tasumi te waxaale wu ko mu ne daal man daal doonuma su fekkente ne daal mbaa mu ne daal dara gënta perte sama bakkan su fekkente ne bakkan bi eh, eh, maanaam commerce bi mu def mooy dafay watte àdduna ala diine maam dafay jël diine jëndee ko poñetam àdduna mii mu ne déedéet su fekkente ne bëgg naa mucc day bàyyi àdduna jàpp diine ngir mu mën a mucc àllaaxira mu ne daal kon gisuma daal ku gën a perte moom mi nga xam ne daal dafa jël diineem wattee ko àddunaam wa man yabi aajilan minhu bi aajilihi yabin lawul xubnu fii bay in wa fii salami wa man yabi képp koo xam ne jaay na aajilan aji dikk ji di àdduna tabaarakallaahu aajalan euh, aji dikk ji euh, euh, aji dikk ji di alaaxira mi nu tukkee ci moom bi aajili ci aji gaawe ji te mooy àdduna waaw maanaam koo xam ne jël na poñetu àdduna mii mu jëndee ko laaxiraam kooka yebbin dana biir loo di ko ñeel alxubnu ak naxeel fii bay an ci njaay wa fi salami ak ci salamle gi nga xam ne moom ngay jàng ci téere yi eh, ñu di ko nettali moom njaayum salamle nee na mu ne koo xam ne dafa jël àddunaam jëndee ko àllaaxiraam kooku moom lu mën a xew bu ko rëccu wut daa duggagul bàmmeel waaye bu duggee bàmmeel dana rëccu kon lan la doon toppee tabaarakallaahu di liggéeyal ay buur ak di leen way ak di leen tagg di leen taggal seeni maam ak lu ko nuru waaw tabaarakallaahu eh, li Seydi si Ahmad Tijaani si rahmatullahi alayhi doon wax ne bi mu déggee tabaarakallaahu ñuy way sëñ Babacar ca bi nga xam ne alaaji sóor yàlla na yàlla Mansour Mbaye eh, suñu baay rahmatu eh, tabarakallah yàlla na ko yàlla dolli wér te dolli guddal fanam moo ko doon interrogé moo koy wax mu ne bi mu déggee ci kër gi ñu naa way sëñ Babacar naan ko gàcce ngalaama eh, siggil ñaawuloo gàcce ngalaama Maodo doy sa baay waaw ko doy na doy ak maqaama siggil ñaawuloo gàcce nee na la ne c'est fini tabarakallah ma ngoog kon waman képp koo xam ne yabi jaay na aajilan aji dikk di alaaxira minu tukkee moom bi aajili aji gaawe ji yabbin dana bérloo di ko ñeel alxublu naqeel fii bay an ci njaay wa fii salami ak ci salam le in aati ndem def naa wala dikke naa zanban bàkkaar fa ma aadi déet kóllëre gi ma kóllëre ak nabil mustapha bi muntaqidin di aji firéeku mina nabi ci yenant bi wala xabli déet sama buumuk cofeel bi mun sarimi muy aji dog mu ne su fekkente ne man daal tabaarakallaahu ginnaaw bi ma tuubee muy xadamtuhu bi ma diin astaqilu bi dunuba umrin mada fi cheri wal qidami googu mu doon wax bu fekkente ne dama tuub ba ma tuub daal man law ah léegi nag bañ xamee ne tuub naa ma indiwaat benn bàkkaar mu ne bàkkaar booba du tee ma yaakaaraat ngir ma ne yàlla mu dal di ma jéggal ndax man kóllëre gi ma kóllërant ak yenant bi def bàkkaar du tax kóllëre gi dagg waaye sama buumu cofeel gi ma am ci yenant bi suy ma yàlla nattoo ba ngeen gis ma ma def leneen lu wuuteeg loola du tee ba tey cofeel gi ma ngi ci man ba léegi moo tax ñu naan doomu aadama matut bul gis nit mu def ak manki tax nga yedd ko waaw kon képp koo gis ku ne yàllaa ko moo ñaaleeg lëm ko bindee moo tax lépp loo xam ne lu mu war a def la du jaas ci moom lu mooy faw mu faw mu mu def ko wala lu mu war a wax faw mu wax ko kon tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla dimbale ba lépp lu ñuy wax mu dëppoog yiw ak lu ñuy def mu dëppoog yiw fa inna lii zimmatan min u tasmiyati muhammadan wa aw huwa aw fal xalq bi zimami ndax fay na lii ñeel na ma man Muhammadul Busayri zimmatan kóllëre min u bu ma am ak yonent bi sallallahu alayhi wa wala bu tukkee ci moom bu kóllëre ga mooy bi tasmiyati ci tuddee giñ ma tuddee muhammadan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa وهو موم يننت او فالخلق مو غنا مات تي مندفي بزممي تي كولر نينا دال من دال امنا اك كولر اك يننت بي نخ حديث يي واخ نانيو ني يننت بي صلى الله عليه وسلم دانا ام نياري جام يو خامنا دنج لين تخاوال تي كانمو يالا ني دال دي لين ديغل ديم لين الجنه ني نواو نيو سونو بروم نون دي نون واو لوتاخ ني دي بريبارال ني الجنه te ñun walam na amal amalan yu jaazina ilal jannati mooy jëfuñu jenn jëf juñ ñu mën a payee payoor gu tax ñu dem aljanna yàlla sunu borom azza wa jal ne leen yéen sama ñaari jaam yi udxulaal jannata dugg leen aljanna ndax fa inni naka man seen borom aalaytu giiñoon naa démb tey door a ñëw ala nafsi ci sama jëmi bopp allah yadxula naar du ma dugal sawara man koo xam ne ismuhu turam ahmadu maanaam ku tudd ahmad wala mu tudd muhammad kookee yàlla du ko lakk mukk ci sawara moo ngay dégg ñu koy way wala yuxaasabu jalilu samadu man ismu muhammadun aw ahmadu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuñ ko tuddee am na sens lu bàkkaaram bëri bëri yàlla mën na koo jéggal yàlla rus na di lakk jaam boo xam ne ñoo ngi ko tuddee muhammad wala ahmad ba tey jaafar ibnu muhammad wax na ne bu yowmal qiyaamee yàlla dafay woo wala boog dañu dégg kàddu gu woote ne ala li yaqu man ismuhu muhammad fa yadxulul jannata karamatan li ismihi mooy eh, yéen waa Dengare yowmal qiyaam ku tudd muhammad jógal ñu ne lan ñu ne ko dugal nga dugg aljanna mu ne kon nag man muhammad laa tudd te kóllëre googu ma am ak muhammad bu ma def def bàkkaar kóllëre ga du dañ te yàlla mën na maa jéggal ci barki sama tur wi in lam yakun fi maadi aqidan bi yaddi fadlan وإلا فقل يا ظلة القدم حاشا أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم إن لم يكن لم نكن في معادي تدلواي آقذم دي أكدن واي أكد جاب بيدي تسملغ فضلا تنباخ ولا تنجنلم وإلا بلول أمول دال فقل وغل يا ظلة القدم وانا ترقص دقن محمد البوسيرين نينا دال بفكي ينتبه صلى الله عليه وسلم buñ delloo yowmal qiyaam ci kërug payoor ga jàppul sama loxo ngir ndama ramm def ko nag ci ngëneelam ak ci mbaaxam nee na kon daal sama ndëggu daal dana tarxiis ba du jaar ci kaw pon siraat te pont siraat ñoo ngi ko teg ci suuf safara su jaxim wala jahannama kon bu fekkee ndëggu la tarxiis na fam jëm mooy jahannama yàlla na yàlla musal ko ci musal ñu ci ak mboolem jullit kon tabaarakallaahu man daal maa ngi daal xasaawu jomm na moom sallallahu alayhi wa sallam yuhrima ba mu xañ araaji aji yaakaar makaarimu ay teraangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo dégg ñu naan diw de du tas yaakaar ku ko yaakaar xamal ne koo koy yonent bi moo fare kaw mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na daal muy xañ wala muy tas yaakaar ku ko yaakaar aw yarja wala muy delloo al jaaru aji dëkkaale minu tukkee ci moom koo xam ne xayru muxtarimi di aji aji aji aji aji tabaarakallaahu ormal ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam darajaam ju màgg ju jooja jomb na ci darajaam jooju ju tedd ja muy nit am koo xam ne dafay wéeru ci darajaam muy mafza an moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza stadatil ahwaalu fi sirri wal jahri kon bu nit ñi njàqara yi taree tiitaage gi tar kañu daw jëm ci moom ngir yàlla xettaluñu ci barkeem mooy doomi Abdallah Jaag Amina yaakaari jaam yi tey ak ëllëg di naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na daal tabaarakallaahu yonent bi daal jomm na nit yaakaar ko daw dem ci moom muy tas yaakaaram moo tax wa munzu alzamtu afkaari madaihahu wajadtuhu fi liqilaasi xayru multazimi wa munzu alzamtu diiru bi nga xam ne taqoo na afkaari samay xalaat ma di ko ballal ak di ko xalaat loo muy xalaat madaihahu ci tagg tagg yi may tagg yonent bi wajatu wala fekkee li xalaas yi ñeel sama euh, euh, mucc xayru multasimi maanaam wajatu laa ko fekkee xayru multasimi muy lu gën ji lu ñu taqoo xayru multasimi di gën di lu ñu taqoo li xalaas yi ñeel sama mucc nee na bi nga xam ne ne am naa daal yaakaar gu wér wér gu dëgër ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam daal du sooyal sama njort ci moom diir ba ma taqoowee jamono soppeeku ma bàyyi way buur yi ak di leen tagg ak di leen liggéeyal walbati samay xalaat di ko tagg yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci laa yégée ne mbooleem lu ma daan def li ci gën mooy tagg yenent bi moo tax képp kuy tagg yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa war a xam ne moo nekk ci li gën te bu newee ci li gën nag warul fowee tagg gi mu tagg yenent bi mooy léeg-léeg nga gis yenn way yoo xam ne daanaka ku ca teg tama mu dem te mag ji defuñu woon loolu way yi ngir fo wala ngir caaxaan moom lay wax nag ولن يفوت الغنى من يدا طربت إن الحياة ينبت الأزهار في الإكم ولن يفوت دفات الغنى كوم من تكيش مم يدا لغو طربت بوب ترقصنا ولا الكنا إن الحياة نكتو ينبت دناي سغل الأزهار فلر في الإكم تدوجي ولا كوم مونتاني نينا يننت صلى الله عليه وسلم آه، دي نبي المصطفى آه، تبارك الله bi آه، صلى الله عليه وسلم nee دال دفات مك yaddoog loxo koo xam ne dafa ñàkk te aajowoo ndax taw li muy jariñ bu wàccee ci suuf mu matale daal di saxal ñax jur gi yëpp man ci man ci man ci jël te taw buy wàcc yàlla du wax ne kee du julli kee du woor kon du ma taw këram wala kee day naan sàngara ji ma tere du taw këram déedéet day sotti suuf si yëpp moo xam fii jumaa ji la wala baar bi la wala école bi la wala wala moom daal day sotti rek taw bi maasale fépp comme nag taw buy wàcc du xàmmee ku baax ku bon moo taxit sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu man daal bi ma fekkee ne li ma mën a musal ci tartar yi mooy tagg yenant bi te mayam yooyee du euh, du faat mukk loxol koo xam ne dafa ñàkk te aajo ni taw mel ci man daal laa yëg ne ndeke taw dana fekk montagne moo xam ne dafa kawe lool doon ay xeer ca kaw montagne ma fa gën a kawe mu daal di fa saxal ñax comme taw danay def loolu kon nag mastumaak man mi nga xam ne maa ngi yaakaar daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla man maa jéggal ci sama tooñaange yi man maa jéggal yit ak bakkaar yi may def walam urit namuma zarata dunya poñatu àdduna wala taartaaru àdduna alati bi nga xam ixtatafat wittoon na yaddaa zuhayru loxoy zuhayru bi ma as naa ca la mu taggoon ala hirami ci hiram nee na mu ne man daal tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jubluwuma ci poñetum àdduna jubluwuma ci alal jubluwuma ci leneen waaye li tax ma def ko wa innama araada al ginna min u fi laaxirati bi shafaa li ma ci bëgg mooy naa ci am koom bu alaaxiraawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ma ramm loolee laa jublu ci tagg yi waaye daal jubluwuma daal la nga xam ne zu ayru mi nga xam ne saayir la bu siiw bokk eh, tabaarakallaahu ñu ko daan wax abu kaab mu nga xam ne kaab moo doon way baanat suaadu fa qalbil yawma mat buulu nee na daal man Zuhayru moomee loola mu defoon ci wayam ya tabaarakallaahu mu ne man jubluwuma ci woon loolu kon nag walam urit na mu ma zaharata dunia tartaaru àdduna alati bi nga xam ixtatafat wittoon na yaddaa Zuhayru loxo Zuhayru bi maas naa ca lam taggoon ala hiram ci hiram mooy wayam ko mayoon Eh, Zuhayru ibnu Hiram ibnu Sanaan ci tagg yam ko taggoon mu daal di ko jox pañetu àdduna mi aji jeex mu ne man jubluma ci loolu man daal li ma jublu ci tagg yenant bi mooy naa ci jëlee yiwu àdduna ak alaxira yaakaar naa tabaarakallaahu eh, suñu juróom-ñeenteelu bunt foofu la yam di ñaan buur yàlla mu defal ñu dégg ak topp lépp lu dëng ci kàddu yi ñu xam ci matadee ngóor si doon wax la gàtt xam ak ñàkk fasaa li ci jub ci mbaaxu yàlla la ak yërmandeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. علي يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيامن خليل يا عجا وانزلا بالتواون